barhaamu baun waraun alifun thumma ha mi mu mujjël faydu tiijaan jox ñu naan nekk bàyyi xelam ci boppam. na ku nekk bàyyi xelam ci boppam. kenn jógut pour rey kenn. kenn jógut pour rey kenn. kenn jógut pour xas kenn. kenn jógut pour xas kenn. kenn jógut pour ñaawal jëmee ci kenn. kenn jógut pour ñaawal jëmale ci kenn. li nga def li nga def mooy lan. li nga def mooy lan. man kii laa tànn kii kii la tànn. man leader bii laa tànn. kii leader bële la tànn. jeex na loolu rek la. jeex na loolu rek la. loolu mënta yàq seen diggante. loolu mënta yàq seen diggante. mënta yàq xaritoo. mënta yàq seen ak xaritoo. mënta yàq seen àndoo. mënta yàq seen àndoo. bon nag lépp loo xam ne dafay baaxal defar. bon lépp loo xam ne dafay baaxal di defar. nañ ci dimbalante ñun population bi. nañ ci dimbalante ñun population bi. ci suñ biir. ci suñu biir. war a jàppale suñu autorités yi. war a jàppale suñu autorités yi. door a mën a jàppale suñu autorités yi. door a mën a jàppale suñu autorités yi. waaye buñ déggoo. waaye bu déggoo wut. ku nekk ñor di fa nga jëm. ku nekk ñor di jëmale fa nga jàpp. te ñor dee woo yoon ñor dee woo jàmm mer ak saaga ak kaste loolu rek la. ñor dee woo jàmm lu dul mer ak kaste saaga loolu rek la. duñ dollee ko duñ dollee ko abadan. sëriñ bi ne duñ dollee ko abadan. li ñuy dolli li am na Sénégal. li ñuy dolli lépp am na Sénégal. barke am na fi. barke am na fi. borom xam-xam am na fi. borom xam-xam yaa ngi fi. diine am na fi. diine am na fi. lépp luy kaweel nit am na senegal lépp luy kaweel nit am na senegal waaye ba mu yi bu sàgganee loolu nañ ko jàpp. waaye doomi Sénégal yi buñ sàgganee loolu nañ ko jàpp. jàpp bu baax a baax. nañu ko jàpp bu baax a baax. li xew ci àddina bi nag ci àddina bi yëpp la xew. lii xew ci àddina bi nag ci àddina bi yëpp la xewee. laïcité bu mat sëkk moo xew ci àddina bi. laïcité bu mat sëkk moo xew ci àddina bi. culture laïcité nag moom la ñuy dund. culture laïcité culture laïcité nag. moom la ñuy dund. moom la ñuy dund. mooy kenn gënut mooy kenn gënut kenn. bu kenn faale kenn. bu kenn faale kenn. sa lépp àddina rek la. lépp àddina rek la. lu sa àddina kawee rek noonu la baaxee. lu sa àddina kawee rek noona la baaxee. fekk doomu aadama ëpp na loolu. fekk doomu bi ëpp na loolu. doomu aadama moom la yàlla wax ne yaay sama xalifa ci kaw suuf. doomu aadama moom la yàlla wax ne yaay sama xalifa ci kaw suuf. kooku kon xam nga ne ku kawe la. sëriñ bi ne yàlla nañu yàlla dimbale. sàmmal ñu suñu Sénégal. sàmmal suñu Sénégal. may ñu jàmm ci suñu Sénégal. may ñu jàmm ci suñu Sénégal gii. yal nañu yàlla aatal suñuy autorité yal nañu yàlla aatal suñuy autorité yal na yàlla dimbale leen. yal na yàlla dimbale leen. daf leen nit ñoo xam ne. daf leen ñuy ay nit ñoo xam ne. ci nit ñu am xam-xam lañ. boo amee xam-xam rek noppal sa bopp noppal. boo amee xam rek noppal sa bopp noppal nit ñi. boo boo amul xam-xam nag. foofa rek la coow li di bàyyeekoo. foofa rek la coow li di bàyyeekoo. amoo xam-xam ba pare ne maa fii nekk. amoo xam-xam ba pare ne maa fii nekk. coow rek coow coow rek. coow rek lay andi. yal nañ ci yàlla musal. salaamaaleykum wa rahmatulah. barhaamu baa'un waraa'un alifun thumma haa miimun mujjal faydu tiijaan jox ñu ñuy naan.